Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Siyende andi ay jangat ak leral ci dundu sunu yaakar tay ëlëk Cheikhuna Ahmad Bamba Khadim Rasulillah alayhi salatu wassalam. Mi ngi feñ jamono Serigne Touba ci 1270 ci gaddaay gi. Tollok 1853 ci miladi. waaye juróomu góor ñu gën koo xam ci Maam Mor Anta Mbàkke waaye juróomu jigéen gën koo xam ci soxna Maryam waaye gën a siiw ci jaaratullaahi ngir mënoon jàmm yàlla gu mënoon jàmm yàlla sëriñ bi waxtu wi nga xam ne mat naa dal ñi ngi ko dal jàng alxuraan ñi ko jox baayam bu ndaw ku ñuy wax sëriñ Mbàkke Ndumbe dëkkoon Jolof ne kooku moo ko daral alquran jàngal ko ko ba mokkal gannaaw bi mokkalee ci la si kooku bàyyi ko sëriñ Mbàkke Ndumbe moomu gannaaw bi ñu jël ko jox ko nijaayam di sëriñ Mbuso bi bokk na kon ci ñi ko jàngal gannaaw bi it bi mu mokkale alxuraan di péyéen am njàngu xam-xam bokk na ñi ko jàngal ku ñuy wax sëriñ Sàmba Tukulóor Ka nekkoon kilifa ci tarixa xaadiriya kooku jàngal na ñu ne sëriñ Tuuba bokk na ci lim ko jàngal téere bu ñu wax ar ci muy wax ci wàllu fiqhul maliki sëriñ bi nag jamono bi muy jàng mu nekkoon koo xam ne nii dara nekkutul yitteem lu dul xam-xam rek joxoon ko lépp ba mujj géeju lool ci xam-xam yu bare bare bokk na ci ñi nga xam ne jàngal nañ ko ku ñuy wax xaadi ma jaxate kala kooku it am na ay fànni xam-xam yoo xam ne nii jàngal na ko rawatina xam-xam boobu wa wax